asalaamaaleykum mbokki internet yi seetaan Dakar Buzz ñu ngi leen di nuyu den jaar bu baax waa tey nag dañoo ñëw fii ci Géejawaay ñëw fekk fi benn sangu bu baax bu ñuy wax sëriñ Xaadim Mbàkke Kamal euh, ñu amoon nag fan yee passé ay xibaar yoo xam te dañ ko tegoon ci kawam ñu ne dafa demoon fi nga xam te ni moom mooy màkkaan bu mag ba muy Touba ñu ne dafa demoon foofu di jaar ñu gis ko muy def tawaaf loolu nag lañ ñëwoon fii doon ci laajte pour mu indi ñu ci ay leeral ñu jox sëñ bi rek kàddu gi mu tàmbali bisimilah. salaamaaleykum sëñ bi ñu nuyu la. waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatuhu ñoo ngi sant mbokki réew mi ak bitim réew yëpp di ñaan sunu boroom subhaanahu wa taala mi boroom adduna bi yëpp yàlla def jàmm ci réew mi ak ci bitim réew yëpp ak ci mbooleem jullit yëpp waaye di ñaanal sëriñ Muntaxa mi nga xam ne mooy xalifa seneral di murit ak Serigne Bassirou Anta Niang mi xalifa maam Thierno Birahim borom daarul mooti waaw li nga laaj loolu moom laay laaj ndax loolu ni ci ñëpp am am rek laa ci am li ci ñëpp am rek laa ci am mooy damaa dégg ñu ne dafa am ku dem Touba doon def euh, li ñuy wax di bëgg wër jumaa ji bi koy bëgg a wër ña fa ne daal di koy bëgg te mu daal bifu ak ñooña ñu daal di jàmpante ba moom sax jàpp nañ ko ak jàppale juróom-ñaari nit ci ñoom ma dégg xibaar bi bi ma xëyee suba ma gis ci benn sit internet mu bind ne Serigne Khadim Mbacke la moom Serigne Soubayrou maam Thierno Birahim ma gis ko ci la gëstoo nag ba xam site bi xam naa ña ko def ak ñëpp ba loolu ñoo ngi koy dox ci weneen wàll ci wàllu yoon waaye daal may leeral nit ñi ne leen Serigne Khadim mii di wax ak yéen. moom la wax ne mooy doomi Sëriñ Subayru maam Ceerno Birahim waaye mii day du def lenn lu bët ndigal te it daa tënku ci këru ndigal ndax borom daarul moxti ku ko xam maam Ceerno ku ko xam danga xam ne ci sunna lay dox du def lenn lu génn sunna ak njàngalem sëñ mi nga xam ne moom léppam da koo tënk ci sunna daarul moxti ku leen xam xam ne du ñu fawe diine mukk waxuntuma nag ku juddoo ci yoon wi yaroo ci yoon wi màggee ci yoon wi du def lenn loo xam ne dañ ciy xeebe yoon wi te man dama am ay kilifa kilifa yoo am kilifa ba ci sëñ sëñ Muntaxa kon nag may leeral senegal ñëpp ne leen sëñ Xaadim mi moom demul ci jumaa di wër àndut ak mbooloo mi di wër menn nitam benn nitam boo xam ne aju ci man du bëtt Xaadim mi dem fenn di fa def lenn lu lu jaaduwul man mii defuma ko ku ànd man defu ko ñooña maak ñëpp ci bokk yam nin ko gisee rek noonu laa ko gisee waaye nag sama tur wa ca dugg rek ma dégg ko te ma bokk ci yoon wi te yàlla dogal ma jiite fi ak njaboot am fi ay mbokk ñëpp di wax guddi ak bëccëg di ma woo di leerlu li tax rek ma woo site bii de Dakar Buzz pour wax ci ñoom pour leeral ne Sénégal xaadim mi day nekkul ci ludul jaamu yàlla ak liggéey tëlut lenn lu dul li Serigne Touba di jàngale mu jëm mu jëm ci taalibe yi ak jëm ci diine mu koy gëstu di ko xam di ko xamal ñam àndal te it luy yablu yoon du jaar ci moom kon loolu daal laa doon leeral di wax ne maa ngi maa ngi maa ngi ñaawlu bu baax a baax euh, adduna bi nga xam dañoo toll foo xam ne nit ñi dootuñ waxati lu leen leer te absid boo xam ne sax dañ ne murit lay tuddoo war naa wax ci yoonu murit ci koo xam ne euh, daa bokk ci yoon wi war naa wax ci moom lu rafet bu xamul ci moom it war naa gëstu ndaxte ni mu def ba bind ko su gëstu woon dana xam sama numéro dana xam ku ma xam ma leeral ko muy doog a bind waaye loo xam ne xaw ko maa moom ñoo ci bokk yam muy bind sama tur ci ay site ba murit yëpp eh, ñu ci bëri foogoon ne man a te man ku ma xam ne man du bëtt daray ndigal ah loolu day metti na ma lool te maa ngi koy ñaawlu di ko wax ne ko nag murit du tooñ surtout ku bokk ci yoonu murit sëñ Tuubaa boo ko déggee doo tooñ te doo def lenn loo xam ne bokkut ak lam la jàngal te dafa wax ne bu kenn jéggi nit di wax ci moom loo xam ne xamoo ca dara te def nañ ko nag ñoom kon nag maa ngi leeral taalibe yi euh, la ma leen doon leeral xam nañ ko ñoom mooy fañ tënku rek fa lañ tënku ñun nekk ci ndigal tey bàyyi tere kon nag loolee du man ñoo ñooñu it xawma leen maa ngi ñoom maa ñëpp ci bokk yam waaw euh, mbirum ñàkk man rafetlu ma ko ndax ba ma gisee image yi laa ko ñaawlu di di ci wax ndax li xew léegi ci diine ji kenn xamulum doon ndax léegi ñii ngi woote ak yonent ñii ngi dem di wër ay tawaaf def ay yëfi jaahil yoo xam ne kenn xamul mel loolu nag bépp sëriñ boo xam ne nii am nga baat ci réew mi war nga cee wax waaw waaye nag bu fekkente ñi bokk ci yoon wi ñooy tuumaal waa yoon wi man xamatuma fu fu fu adduna bi nekk te ñu ko bind du ñenn ñu dul ñoo xam ne ni dañoo jël seenub sit bind ca bind ci turu yoon wi damay bañ a tudd waaye xam nañ ko te ñoo ngi wax ne am na ñu ma jox loolu bañ koy dox te it bu soobee yàlla danañ ko teg ci aw yoon kon nag damay wax ne eh, ñooñee lañ def rafetlu ma ko ñaawlu naa ko waaye sama yoon nekku ca te sama kenn nekku ca te it man mii di wax ak yéen it Tuubaa gu eh, ma fa gëj ci xol waaye sama jëmm ji moom gëj na fa ci ci ci ci ci ci ci saayir ndax gëj naa fa Tuubaa lool kon nag ku nekk këram tëdd di jaamu yàlla nekk ci ak njabootam nga xëy suba gis ko ci ay wax yoo xam ne xamoo fu wax ji jóge li tax may leeral rek ndax leeral du ragal sax waaye weddi tuuma la ndax tuuma bu bëree te ak njaboot nga am ko ñëpp di la déglu ñu bëgg a yàq sa image ci àdduna bi faw nga génn leeral loo xam ne nit ñëpp xam ko man nekkuma ci lu dul jaamu yàlla ak liggéel sëñ Tuubaa ak tënku ci ndigal muy Sëriñ Muntaxa lépp lu mu digal sama kilifa sunu kilifa digal ñu ko ñu nekk ca loola ci loolu lañ tënku ak ku ma àndal duñ bëtt mukk loo xam ne diine bugg ko lislaam rafetluwu ko sariya yoonam nekku ca loolu ñun suñu suñu Xaadim Mbàkke nekku ca kon nag maa ngi ñaanal ñëpp ñi may seetaan loolu rek laa doon leeral euh, waa dakaar Buzz ñu xam loolu adduna bi yëpp xam ko euh, di wax rek ne site boobu bu fekkente ne ñi ko moom ay murit lañu ndax dañoo def turu murit ca kaw waaye bu dee ay murit lañu nanu xoolaat seen bopp bu baax a baax waaw ndax xam nga ne xam nañ ne maanaam li tax ñu def ko xam naa dañoo bëgg ay ay ay ay ay vie yu bëri waaye nag bëgg ay vie war ngaa moytu di tooñ di tooñ di wax loo xam di wax information boo xam ne da nga ciy mujj yàqulee waaye doo ci defaroo waaw ndax banoon nañoo dem tooñ keneen waaye ku bokkut ak kii ñuy tooñ ndax ki ñuy tooñ du tooñ kenn te duggul ci lenn kenn man li may digle toujours xam nañ ko ci net bi mooy nañ toog nañ fonk seeni waajur nanu jaamu yàlla nu liggéey nanu doylu nanu xam ne ndaw day jaamu yàlla nangoo liggéey te doylu te lu mu am mu doy ko man ci loolu laa nekk sama image yëpp ci loolu laa nekk nekkuma ci leneen lu dul njàngaleem sëñ Tuubaa kon nag képp koo xam ne bëgg nga ay vie da ngaa war a seeti faneen waaye waroo ñëw fii ci man waaw kon nag tooñ nañ ma waaye jéggal naa leen waaw waaye nag dinaa topp nag loolu ba xam lu tax ñu jublu ko lu tax ñu def ko ci ba xam ci lu leer doog leen a bàyyi nag waaye nag jéggal naa leen sama xol waaye njaboot gi ñoom la lañ ca war a dox ñoo ngi koy dox te jàmm rek moo cee mujj incha allah waaye nanu xam bu baax bu ëllëgee bu ñuy dugal nanu xam li ñuy dugal bu baax a baax waaw ndaxte dugg ci benn euh, euh, benn groupe fee whatsapp rek euh, dugal foto ne kii ku ko xam mu nuroog sëñ xaadim am ñu ne sëñ xaadim la Kamal ñu ñu ñu bind ne sëñ xaadim Kamal la mu sëñ Subayru maam Ceerno Ibrahima tooñ nañ waa Daaru Muxti gépp tooñ nañ waa Daaru Muxti gépp tooñ nañ taalibe Daaru Muxti gépp ndax ñun gis nga sëñ Basiru Anta Ñaŋ bu yàggul la demoon ci sëñ Muntaxa di yeesal boppam kon nag ñoom bu fekkente ne ñun dañoo nekk tënku ci sëriñ Muntaxa am loo xam dafa am loo xam ne ni kenn xamut mbirum lu mu doon ndax sëñ Tuubaa jàngalewu ko sëñ Tuubaa genn xibla la am muy yonent bi muy muy muy Kaaba ga yonent bi moo doon moo doon sëriñam di léppam lim jàngale ci téere yi ci ko jinaan ak téere yi nga xam ne ko bind ci tasawuf yëpp day day leeral jaamu yàlla gu set bicc te du rax dara a ah, léegi nag bu fekkente ne dara daa am ñu mën koo jiiñ koo xam ne daa bokk ci maam Thierno war nañoo seetaat seen bopp ñoom bu baax ndax li yàqu li yàq yoonu murit du jóge daaru moxti waaw li yàq yoonu murit du jóge daaru moxti te ñun yëruñu ay taalibe di leen ñàkk a xamal luñ warut a xam bay def luñ warut a def toujours ñoo ngi leen di yar ci njàngaleem sëñ Tuubaa yar leen ci liggéey ak jaamu yàlla kenn du leen dégg ci dara du dul saa su ne ñoo ci lañ war a nekk ñun it kenn du ñu dégg ci dara lu dul nekk ca lañ war a nekk kon nag bu ñu gisee yenn eh, information yoo xam ne faux information la danañ koy leeral ba adduna bi yëpp xam ne loolu nekkut loo xam ne lu wér la tey nag ñun tëluñu loolu te maag ñëpp ci bokk yam euh, mooy loolu xew Touba maag ñëpp ci bokk yam ni ko ñëpp gis ak laa ko gisee te waa ji mi ngi tudd abib daabo abib daabo a Xaadim Mbacke Kamal ni soree nga jël turu sëñ Xaadim bëgg ko caa dugal loolu lu doy la te ma nga ca polisu janatu waa ñu jàpp kon ña ko def dañoo bëgg a yàq image Serigne Khadim waaye defuñu ko ngir leeral information ndax dañoo gën a lëjal boppi nit ñi waaw ndax ku xam Serigne Khadim nga dugal ci moom lii dana ko jaaxal moo tax nag ma bëgg leen leeral ne du Serigne Khadim te ña ko def it xam nañ leen xam nañ site internet ba moo tax ma bëgg leen a xamal ne leen danañ lijjanti loolu ba mu leer nañ ñi ci ñoom ba ñu xam ne buñ bëggatee ay vues yu bëri nañ ko dem seete ci keneen waaye fii du ñu tooñ te bëgguñu ku ñu tooñ kon ñoo ngi ñaanal ñëpp waaye tuuma nag mënta ñàkk ndax ku am sëñ Touba ñu tudde la sëñ Touba war ngaa mën a nangu ay tuuma ndax tuuma fi jëlee sëñ Touba yóbbu ko ci géej gi kon nag buñ ñu tuumaalee dañuy dañuy xam waaye jamono toll foo xam ne ku nu tuumaal war ngaa leeral la tuumaal ndegam dëgg la wala dëgg li tax rek ñu woo euh, site internet bi di ci wax ak ñoom waaye nag du du loo xam ne nii sax waru nañ cee wax ndax kilifa yi ñu woo rek moo tax ñu wax ci nii sax waaye amutoon solo ci ñun ndax xam nañ bu baax a baax àdduna fi mu toll ndax euh, ku jëm ci aw yoon te te rafetal saw doxin euh, faaw ay ndog-ndog di am ci yow ngir nit ñi léeg-léeg ñu lay yóbbu foo xam ne doo fa nekk bu ko defee rek incha allahu rabbi ñu xàmmee ràññee ba moytu di tooñ ak di tuumaal asgor as gor kenn du ko tuumaal kenn du wax ak wax ci moom loo xam yëgu ko ma nga ca këram yëgul lu xew nga waxal ko loo xam ne nii ñëpp koy dégg te di ko woo mu ñàkk mu ñàkk jot euh, ñu koy woo di ko dugal ci yoo xam ne xamu ko te mu tënku ci taali bi te dul ak taali bi man Xaadim Mbàkke safuma waaw kon nag maa ngi ñaanal ñëpp wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu Habib Dabo ma ne ku bëgg xam ci moom daal da ngay dem ci Jannatul Mahwa jàpp nañ ko ma nga foofa kon bu bu ci kenn tuddati bu ci kenn tuddati sama ñooñ man nekkuma ci loolu lijjantiwuma loolu maa ngi ci ndigal tënku ci ndigal sëñ Muntaxa yàlla na fi yàgg te wér sëriñ Basiru Anta Ñang Mbàkke yàlla fi yàgg te wér wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.